ku baax nay nañ la. waaye fay nan la ku baax. tur bi nan la. tur bi Abdou Ndour la ñu gën koo xam ci Ndour a xaar yàlla. Abdou Ndour taximan. waaw ñu gën koo xam ci Ndour a xaar yàlla. Ndour a xaar yàlla taximan. taximan waaw. lan mooy seen métit ak seen naqar. ñun suñu métit moom bëri na maanaam du yëpp la ñu mën a wax mais comme état bu bees nu am étape par étape la ko jël étape par étape xam nañu ne mu ngi nuy dégg wala même bu bu fekkee mu ngi nuy dégg sax maanaam yàngoo yi mënunoo xaar ñun maanaam comme wàññeenu gaasuwaal wàññeegunu ko quoi xam na ne mën a gunoo tëb rek wàññi ko mais ñun taxi la ñu amuñu lenn du taxi yii nii te ñun yaakaaruñu ko ci état Basirou Diomaye Diakhar fay moom la ñu yaakaar ci mbir mi ak Ousmane Sonko premier ministre ak ministre de ministre de El Malick Ndiaye waaw moom la ci yaakaar moo yor warum transport yaa ngi dégg léegi ñun yaa ngoo yëg x comme comme ak Yassir ak ay kaay dem ak lu ne. waaw yooyu ci. yooyu yëpp am nañu ci man yor naa ko sama téléphone man yor naa ko mais mais bëgguñu maanaam tey comme nee nañu maanaam euh, technologique bi danoo bëgg mu avancer danoo bëgg technologique avancé maanaam comme ko wax ñu ne dem na ba États-Unis France da ngay toog sa kër woote dëgg la loolu moo ëpp sécurité mën ko jox oto yi am licence waaw li wóor li moo wóor assurance vingt et mille yaa ngi dégg di dag droit droit de serno du koy dag trois mille francs yaa ngi dég chaque six mois visite technique chaque six mois visite technique même bu fi jógut nanu ko jox oto yi am euh, licence mais mënoo yor sab kalandoo wala sab 4 x ñëw ñun boo ko ndoog ñun métier mi yor sa benn tra joxe ben droit yor sa poids léger wala sa poids ñun transport libéré en commun la ñu yor lépp transport yaa ngi dégg lii la man moom personnel moom li tax ma dugaat ci taxi gars yi xam nañ ko dawoon naa parce que yàqu na mais li tax ma dugaat ci président Bassirou Diakhaye Diomaye fay moo tax ma dug ci mais man moom pare woon naa pour gaal man pare woon naa pour gaal yi ndax bu bees bi moo tax man état bu bees bi tax ma toog pour xaar man pare woon naa pour pour léwtoo ak géej gi dem mais état bu bees bi moo tax ñu toog di ko xaar di ko déglu mais comme waxaguñu ci dara ñu ngi taaxeerlu mais gis nga bu loolu moom man yoonu yoon woon nekkoon ñu ngi ci waaw gars yëpp a ngi dem ñi ngi jaay mooy loolu parce que taxi doxut ñi ngi mooy loolu ñi ngi dem di commerçant ak yooyu noonu ñun taxi amuñu lu dul taxi lii doon kon état bu bees bi am nga ci yaakaar état bu bees bi am ci yaakaar moo tax ma bàyyi ndox mi yoonu géej gi ma jëloon dem yokkaat sama libéré sama libéré am na six mois yoo xam ne ni dawaluma taxi mais mais yango yango état moo ko autorisé yango bu ko état autorisé na ko autorisé oto na du pour particulier est-ce que sax état moo ko autorisé est-ce que moo ko autorisé est-ce que état ba fi jóge woon ba fi jóge woon moo ko autorisé état mooy continuer ba tey mais buy continuer na xoolaat affaire moom la ñu bëgg mu xoolaat ko ko jox zone wala ñun tamit ñu xoolal ñu uti assurance sept mille francs peinture suñu taxi yi couleur di dag assurance sept mille bay ah, visite technique un an koy dag assurance sept mille francs bàyyi droit yi nuy fay ñu def ñun ñëpp yàngoo ànd ak ñoom dëkk ñun li ñu dugal ci li ñu dugal ci état bi ko ci ah, xalaatuñu ko dugaluñu ko ñun même bu dul gasoil ak essence nanu nan ñu réglel ñun maanaam tey ñu réglel nu maanaam lii ñu ah, jëleen droit yi ngeen di fay yàngoo yi fay ñu fay ñu fay ñu assurance assurance sept mille francs droit un mois ñun ñuy dag droit chaque weer di fay assurance vingt et un mille mais loolu moom miti da ngay daw ba mooy loolu dëkk bi amul dara barke Seydina Muhammad ñu ngi ci El Malick Ndiaye ñu ngi koy ñu ngi koy tàllal loxo pour mu ñëw jàppale nu suba sax dañuy war a dem fële na pour am nañu autorisation pour kii bi jàpp dox dox. suba fan ngeen jëm. waaw ah, euh, euh, exclusif VDM bi. foofu ngeen nar a tas yéen taximan. déparé jël VDM bi ut école normal relais. dem ban Ndakaaru Sandaga sax dañu fay dem. waxe seen soxla. ah. wax suñu soxla kay ak sunuy droit. lii nii tey rek jaay naa lii nii ne lii nii tey rek xoola taxi xoola liggéey naa ban heure laa départ sept heures du matin laa départ di daw ba pare xoola daw ma sax quinze mille francs li ma jaay ci lii xoola pour dagal oto mat na quinze mille francs parce que lii la ñu am ñun lii la ñu am ñun maanaam taxi métier mi la ñu am moo tax lii la ñu koo bëgg a takk ba ñu xam ko bu ñu sañoon sax du ñu ko takk di wër moom Dakar mais dañoo yàgg di jooytu kenn wali Dakar yëpp la ñu bëgg mu ruus. mais mais accident yu bëri ci tali nan nga ko gisee. accident yu bëri ci dëkk bi yu bëri ci dëkk bi moom fan yii bi ci am taxi la doon mais dañu koo daw dab ko mbëgg ko ñun moom taxi moom déggoo fi ñu naan ñu ngay sooge ñu ngay def ñu ngay rayante nangam nangam taxi man moom macha allah mën na noo dawal parce que ñun suñu permis jënduñu ko ñun danoo dem uti permis ñu dàq nu dàqaat nu ñu koy ñàkkante ba am ko waaye yoruñu demuñu ay def permis maanaam un mois ak yooyu noonu. waaw danoo am poids léger am transport yaa ngi dégg am poids lourd dem uti libéré ñun macha allah moom ñun dañuy dawal normal. seen permis daal légal. suñu permis légal la ñun kayit yu mat la ñu am ñun kayit lu mat la ñu am. ku ñu leer da yaa ngi nii leer nañ sunu suñu poche. Ah. li muy bëri bëri bëri bëri bëri doo ci gis zone noire. li muy bëri bëri bëri bëri doo ci gis zone noire dañoo tarbiyewu métier mi dañoo mën a dawal dañoo réglementé. waaw salaam salaam ziar naa leen. waaw comme li naqari gars yi rek moo ñu naqari ñun ay citoyen lañ juddoo si réew mi yaroo si réew mi jàngee métier si réew mi amaana fi ndaw ñi di jaar di dugg si gaale yëpp war nañ see mën a mën a jaar ndax fit la ak yor sa alal di si dugg waaye na comme yàlla dogal na fii leen nekk di tërbiwu ba man suñu métier yor suñuy taxi bu ñu gisee beneen feem boo xam ne génn na fi lu nu naqari war na toog si mbedd mi jooytu ko ñu waxtaane ko ñun na xeexuñu xuloowuñu violé wuñu amul sàcc ñu defuñu dara ñun ñu ngi toog di jàppee si yàlla li ñu bëgg mooy mu dimbali nu te yàlla tax bu dee application yi ngay wax noonu mënu fee ñàkk taximaan yi yëpp xam nañu ko yor nañu ay téléphones yu ko man na ko jël ba jox ko borom licence yi ñiy dagg assurance di wut wi si technique bu normal di ko yor ñoo ñoo yeyloo liggéey boobu ñu jox leen ko waaye mënoo ne yow da nga xëy nekk si buntu marché bi di taqale di taqale ba yàgg rek benn pataro jóge fa leen ni la bàyyi lii ma jëndal la particulier nga dem dawali di yàngoo moo ëpp xaalis nga nekk si dëkk bi falax-falaxe ñaaree nga jiitan seeg benn particulier dalay leer na kii mën dawal xamul signalé gauche xamul signalé droite kooku mu ngi indi jëye si kaw tali bi ndax ki mel ni moom bu toppee si ginnaawam rek mën naa def jëye. mais erreur bi est-ce que newul kon ñi leen jox permis la. ñi leen jox permis waa ma at ah, du ma. ku mënul dawal tamit nan nga koy joxe permis. waa adduna lépp loo gis fi mu toll nii surtout maa réew mi nu nekk nii lép xaalis a fiy dox. soo amee sa xaalis manqué woo dara am na ñoo xam ne yor nañ permis mu ngi seeni poos te mosuñoo dem passé ji benn rendez-vous ah ñu ngi yori permis seeni poos waaw mënuñu ne la fan fenn la ñuy passé code wala fee la ñuy passé condé ñu ne dañ ñu jàngal ñu métier ñu yor permis at daanaka téye ko dawaluñu ndax xam nañ ne ñun mënaguñu suñu métier bi ñu demee ba suñu métier ban ñu jox ñu suñu pièces léegi nag li ñu bëgg mooy état bu bees bii ñu dimbali nu te yàlla tax waxuñu la application bu mu fi jógee de waaye nañ ko jox borom licence yii ñu yor ko liggéey ñun loolu la ñu gëm ñun ñu bari ñu ngi koy siiw def si dëkk bi xew woo gën a riis fii boo ko seetloo ba sa biir mu doon bopp taximaan boo fa jógee di nga ne gàcce ngaa laama boo demeen suba di nga ko bëgg a may sa doom ndax dina fa def ba def fa loo xam ne wóor na Cheikhul Khadim ñu yori milliards sax amaana nunguwun ko seenu xew borom dara day yu bari fii dañuy am ngénte xëy ñëw tudd doom ñi dellu seen marché ñun dañuy xewal lu mat semaine bu yàlla bu teg di rey ay nag daanee gëléem di yàq di togg di yàq di joxe kon nag nañ ñu dimbali defaral ñu liggéey bi ñun ay daankati doole lañ ñu sàcc ñu fenuñ étranger boo mën a wàcc si dëkk bi ak làkk boo mën a dégg boo arrêté taxi man mu yóbbu la fa nga bëgg a dem loolu yàlla def na ko si ñun kon nañ ñu dimbali yombalal nan leen di maaleykum tey ñoo ngi fii ci xaar yàlla dañ fee fekk suñu mbokki taximaan yi euh, ñu am nag lu leen métti loo xamante ni moom moo waral seen morceau yu xonq ñu koy naxarlu ku baax ñu ngi lay nuyu. waaw di ziar bu wér sama waa ji. tur bi nan la. Moussa Fall taximaan xaar yàlla. Moussa Fall taximaan xaar yàlla. lan mooy problème. bon ñun suñu problème mooy yango particulier ñoo ñu sonal en euh, bu ma leen yango particulier mooy ñi nga xamante ni. chauffeur bi poids léger rek lay yor oto bi amul assurance assurance du transport amul agrément transport bon ñëw di concurrencer taximan yi nga xamante ni bon seen i droit yëpp dafa mat sëkk. taximan seen droit dafa dafa mat sëkk. yango yi seen droit matul. matul mooy li ma la expliqué sànq bi poids léger lay yor oto bi licence amul agrément transport d' abord amul licence xool droit de toppal dara alors que taximan bi chauffeur bi transport en commun la yor day am livré o fait oto bi day am agrément transport en commun day am licence ba nga xamante ni gouvernement moo ko joxe day fay droit de stationnement assurance bi vingt et un mille par mois kon taxi bi dafa complet mu ngi ci ay règlement yu wóor péng alors que yangoo moom mooy li ma la wax sax rek amuñ sax amuñ sax amuñ sax autorisation parce que transport irrégulier la transport irrégulier la nan la affaire bi demee nu ñuy concurrence nag fekk suñu liggéey bëgg ñoo rey kon ñoom dañuy yàq seen liggéey daal yàq suñu liggéey absolument ci ban côté mooy bi ma ci prix yi non ci côté wala ci côté tali bi wala wala wala wala boobu nit ñi léegi ñoom ñoom lañ tax ñoom ci boppam dañoo war a def transport parce que réglementé comme yéen comme nun comme ni ñu réglementé ñun ñoom réglementé wu ñu noonu bu fekkee ne bu fekkee ne taximan bi def taximan bi am na droit def yango parce que mu ngi mu ngi nekk en règle mais particulier amul droit def yango parce que nekkul en règle amul autorisation. mais man gis naa taximan yu bëri ay son noir yu bëri yoo xamante ay yango lañ. effectivement parce que am nañu licence ñoom taximan rek moo am droit def yango mais particulier particulier moo amul droit def yango. kon dafa am ñu ko war a def am ñu ko war def. am ñu ko war def amul ñu am ñu ko war def. particulier kenn considéré wu ko mu def yango amu ci droit. mais yango kan moo ko autorisé ci réew mi. yango yango dañ na dañ na dëgëral la dëgëral boo xamante ni président moo ko biroon bi fi jógee bi fi bàyyee ko. président mi fi jógee ko. waaw mais peut être moo signé dëgëral bi moo signé dëgëral bi mais est ñoom carrément wax nañu ko li tax mu jóg. parce que yango bi mu fi ñëw euh, ñu ngi ko lancé ci ci taximan yi taximan dong moo ko doon def mais dañoo dem ba ci biir ñu jugal ci particulier yoo xamante ni sa waay waruñu koo def. yéen boo leen sañoon ñoom ñu génna ci. dañ cee war a génn parce que bokkuñu loolu mooy transport irrégulier. neex na de. ah neex na de. mais Yango. Yango léegi sa sa biir appartement ngay tëdd mu fekk la. mais loolu taximan bi mën na ko. ah taximan mën na loolu. mën na loolu. ah bon taximan mën na loolu. Ah, man pour man li li Yango nangu taximan bi nangu. taximan yi ñoo ko fi indi. yi ñoo fi indi dañoo dañ tee dugal fraude fraude bi mooy particulier bi moo ci bokk moo ci dugg te waru cee dugg mhm. loolu la fa demee. léegi lan ngay wax état bi fi nekk tey. di ko lancer un appel solennel rek mu dimnu ci loolu génne ci li ci bokkul na ñu ko réglementé li ci bokkul ñu génne ko ñun dañuy fay suñuy droit ba mu mat sëg visite technique par six mois lañu koy def. loolu ñoo ko déggandoo loolu moo nekkoon seen métti seen naxar ñu ko doon métti moo war baax tur bi nan la. tur bi Amadou Ndiaye la. Amadou Ndiaye. waaw taximan. tey ñu fekk leen fii ci xaar yàlla. waaw sa nawle bi am lu ma wax. waaw Moussa Fall waaw. lan lan ngay dolli ci li mu li ma ciy dolli rek mooy li mu wax moom kenn mënu koo dindi ndax itam réew moom bu nee réew dafa am lu nekk ci kaw réew muy dafa am ay kilifa yu jiite réew mi kilifa yi nga xam na ñoom ñoo jiite réew mi pour ñu teg réew mi ci yoon mooy dañuy xool li bokkul ci yëf yi ñu dindi ko. xam nga amul kenn koo xamante ne si man mii am naa droit jóg dem ci école yor sama permis dem di jàngale am naa ci droit wala ma ci droit. est que am nga ci droit. voilà ci droit noonee ma ci ñàkkee droit nag yàngoo noonee la ñàkkee noonee moom la ñàkkee droit ñëw fekk ay taximaan ñuy liggéey mu ñëw dugg seenub liggéey. est-ce que nekkul ne affaire yi di liggéey ñoom ñuy liggéey comme comme comme ñoom rek. non du loolu bu doon kay man ma xëy dem jàngale te mënu maa jàngale. bu fekkan rek ñoom dañuy liggéey man ma xëy dem gàddu saab saak dem te école ba na ABCD. mais gars yi nee nañu kat da ngeen yor permis ñu yor permis comme yéen de. mais ñoom lese lan yor amul benn permis lese bu mën a dawal transport amul lese poids lese buy dawal transport foo ban réew nga ko mos a kon su boobaa transport bi kon lan lay jariñ léegi ñoom saa bu ñu mënee taxi rek permis transport am daa war parce que transport moom. moom mooy tax moom mooy transporter bu fekkee nag moom lese bi dafa mën a transporter kooku deretul transport am parce que man dama am lese di dawal particulier wala may wala may dawal leneen ba keroog may mën a dem wuti dem dem wuti transport dem wut ko ba ma jógee bu ma dem wuti libéré ba wutee libéré nag ma doog a mën a dem tax xam nga loolu moom daa am yoon wooy jaar léegi yoon woowu nag bu fekkee dañ koo dindi teg fële kon nag léegi daanaka ni ku jóg bu la neexee ñëw dugg ci. comprendre waaw daal boo leen sañoon daal Yangoor du dawati wala boog ñoom ñu génne leen ci. non particulier moo warul. particulier moo warul daw transporté. moo def maanaam Yangoor bu bëggee loolu dafa war a gis taximaan yëpp wax ak ñoom parce que li muy parce que particulier yi ñu def foofu taximaan yi ñoo ko moom. parce que wàllum transport la fekk nit jël ko yóbbu ko fu mu war a dem loolu transport moo koy def mais location da ngay yor sa particulier rek liggéey ba wàcc daal ne xaaral ma dem transport parce que moom moom mi yor bureau génn ca jëlub kaat kanam dem ci transport est-ce que man am naa droit dem te bureau ba ca liggéey la muy liggéey parce que amu ma ci droit noonee ma ñàkkee droit nag war a dem te bureau ba liggéey moom noonu la war a ñàkkee droit ñëw fekk ma soo métier di ko def te waru koo def loolu nag moom euh, Sonko Diomaye peut-être fi leen ko fekk waaye nag seenu warugar la ñoom ñu xool li nga xam ci daa baaxuloon ci réew mi dañ fekk ñu dindi ko waaw jub jubal jubbanti googee loolu loolee nan ca nekk waaw ndax ndax mooy li leen war nag te tam loolu moom la leen joxe réew mi te dem ci nag ba jeex parce que tam mbir nag boo koy defar da ngay dem ba jeex waaye nag doo sóoraale tey bu ma defee lii ka léeg-léeg ka déedéet comme yow da laa fal pour nga jub jubanti da nga da nga cay tegu rek nit ñi xam ne tegu nga ca nga ñàkk caa ñoo xam ne tegu woo ca loolu daal lan ci amal lu ñu wax na jubal ah, moom daal na jubanti transport ci ci ci jub jubal voilà ci jub ci jub jubal jubanti na ci jubanti transport jub jubal jubanti jubanti ci transport monsieur le président de la république ak son premier ministre euh, Ousmane Sonko ñu ngi leen di lancer un appel chalonnel pour gen jubal jubanti transport en commun mais sa xalaat tamit ci accident yu bëri yi am ci dëkk bi fan mais dafa pëccëxoo désordre total moo am ci dëkk bi boo gisee boo gisee maanaam embouteillage bi gën a bëri lii moo ko waral particulier yi maanaam ñoo particulier yi def yàngoo ñoo gën a yokk ñoo gën yok yokk bi ñoo gën a yokk embouteillage bi ak cag-cag yi nga xamante ni ñoom it réglementé ñu ñoo gën a yokk embouteillage bi ci dëkk ah cag-cag yi dañuy liggéey de dañoo yor kër cag yi dañoo yor kër mais réglementé wu ñu fu ne la ñuy jaa gauche droite de la route maîtrisé wu ñu ci dara ah. waaw maanaam double droite dañu koy tere ci code de la ñoom ñu ngi koy def te ñoom dañu koy def gauche droite kenn du double oto droite. beneen bi mooy beneen bi mooy soog yooyu nga wax noonu soog yi day gën a yokk bu fekkee lii jógu fi. bëri na bëri na trop. parce que xam nga moo tax booy bi nekk fee raxas léegi bu demat léegi maam léegi maam poids laissé bu ko neexee dem benn waay jël ko mu jël particulier mu dem di yàngoo ji. te du jàngu dawal. non day am permis rek dem. mais oto boo ko jàngal li ko mën a dawal. fee lay nekk di ba mu neex ko maam lese mu dem yaa ngi koy jël ko mu dem liggéey. parce que lese bi parce que lese bi kon yow bàyyi nga yaa ngi muy dem nag d'accord nga ne lese moom day transport loolu bëgg na nag problème bi président na ci dem ba jeex loolu loolu loolu ci loolu lañ koy xaar na ci dem ba jeex. président bi ci loolu lañ koy xaar na ci dem ba jeex.